grand chroniqueur mam les euh, moom li may faral di wax rek damay damay sawar torop di ko suma micro ndax à chaque fois bo xee ci lamb rek mom li ci gis moy ndariñ ak pertinence donc avant tout course ñu nuyu la bay la nga présenter wu euh, ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sante aussi yeen wa Info di gërëm suma way frère comme d'habitude Cheikh depuis Allemagne la job suma frère di gërëm pap bisenti pap bisenti depuis la bokker di gërëm xaddam wa dar Musi aussi ma ngi leen gërëm bu baax wa Touba di gërëm Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gueye depuis Italie ak Youssou Gueye su may xarit lañu di gërëm Omar Mbow depuis Lyon Omar ñoom ñoo yarandoo màggandoo comme li ma la wax rek jabar rek lañ mënta bokk maa ngi leen di gërëm aussi di leen sant aussi ci ci yéene gi ngeen am ci ci Guédiawaye info pour Guédiawaye jëm ci kanam. waaw parce que avant tout avant ñu ñëw ci combat bi rek xam nga démb Assane amaloon li nga xam te ne mooy journée Euh, ki nga xamante ne mooy général Malika doon ci biré ak Mbaye am ci kawam ndam ki nga xamante ne également grand combat Mame Balla bu am ndam ci kaw ki nga xamante ni euh, mooy Tapha Mbeur ñu jëm ci ñaari combat yooyu daal daal ci wax avant ñëw ci combat tey bi diggante bi général Malika ak ki nga xamante ne mooy Mbaye Tine euh, mën naa wax ci moom tuuti ndax naanaan la bërekat la aussi mais lamb da ngay am sens des fois aussi da am wërsëg parce que boo xoolee ci François Émile Gomis la di ndaanaanu làmb ñu joxaat ko keneen koo xam ne renoo ren aussi ñu xaw a ub làmb ji bëre simple bi muy général Malika ci la bokk bon Mbaye Tine amul sens parce que nit ki boo amee benn manin bëgg chaque combat ngay utiliser manin boobu maanaam mbot booy mbot da ngay mbot ku xaw woyof koo doolal doole mais mbot ku diis gann koo xam ne dafa man di bëre da ngay sonn mais doo mën li ngay bëgg a def te day metti ci Mbaye Tine trop parce que mbot bi aussi dafa wara a ñor xom mais mbotu wi ci ñak fayda yoy daanul ponk li ma gis ci lamb ci bër ci bëre simple bi kon suma la déggee dal liko jumlo moy dem li nga xamante moy mooy mbot bi da ko imposé de tour non da ko imposé général te général dafa 10 général Renaud dafa compétir ci bëre simple bi nek ndaanaan ci bëre simple bi nek kangam comme ñi ay morom nek ay kangam aussi di bëggee di gërem di di di bëggee aussi wa Malika day dund Malika bëgg Malika aussi fi ni ñi tuddu lamb wa Malika aussi ñu leen fay tuddu loolu tax muy rey boppam pour waa Malika moom général Malika. bu ñu xoolee ci xeex bi tam dafa mel général Malika xaw na ko dominer ci général Malika daanaka boo xoolee li ci bari moo ko dirigé te li mu koy dirigé ak kele bi mu ko daanee parce que da ko woo pour mbaytin ñëw mbaytin jéem koo mbot mbotu wicc yooyu général bu Malika tegal ko ban wicc ko jàllul mu dugal yaram bi dugal loos bi pour kele bi mën a entamé wu. parce que première action boo ko xoolee mbagg mi duggul yoon ak loos bi. mais deuxième action bi mu koy daan dafa dugal loos meeg bopp bi ndax loos meeg bopp bi doole la ci bëri parce que mooy tax kale bi entamé wu. parce que première fois kale bi jàllul bi muy def deuxième fois bi nag di ko tër boobu nag dafa dugal loos bi ak bopp bi. kon mu doon jël boo xamante ni mën nañu puissance la bu ànd ak technique. non doole mbër doole nee naa la doole ak masse ak volume bokkuñu nit ku entraîné compétir te compétir bi ñoom général de Malika def muy par bi luñ la daane tey bu subaa da nga fexe ba kenn du ci daan. looloo tax bëre simple baax parce que li ne moo lay rectifier loolu moo rectifier général ci Mbaye te aussi Mbaye war na xool compétence am liggéey tànkam indi dagg bu rafet indi forme bu rafet mais chaque fois ñun ñëpp a yem ñun ñëpp ay ay athlètes lañu ñun ñëpp dañuy compétir mais chaque fois boo xoolee benn dayo bi muy indi moom rek laay gis si moom moom Mbaye waaw coach am na solo bu loolu weesoo ñu dem ci li nga xamante ne mooy grand combat bi ñu nekk doxoon ci diggante Mame Balla Pikine Mbolo ak Tapha Mbeur euh, mu nekk mu di ñëwaat dem jël nga xam nga mbër mu ne am nga yoon mais Tapha Mbeur li ko Mame Balla lay wax ak bi mu xoolee première état première jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo ak Mame war na xam ne Mame Balla combat bi au la ko jël te dafa xamul kuy Mame moo tax mu jël ko parce que boo xoolee Tapha Mbeur daanaka ñu xaw a wu ci làmb tuuti xaw a nekk ci cat ci catul cappaandaw gi ñoom lay jël di leen daan yaakaar na daan ay champion yaakaar na ni mu def euh, wulli def ko Tapha Gueye numéro 2 noonu la bëggoon def Mame Balla mais xale la daa war wut combat jànq wut combat ndaw wut combat bu mu tolloo génération bàyyi mag ñi parce que mag ñi bis bi ñu la daanee nga ruus doo tiim mag mu nekk xale njëkk laa bëre nga ne ko kii dafa jeexal ba pare Mame Balla état bi mu indi doole ji mu indi ak mën a bëre bi mu mën a bëre ak ñi mu yóbbu top 5 bu xooloon ay vidéo Tapha Mbeur bu xooloon ay vidéo Mame Balla dëgg war naa xam ne ñi muy boole top 5 ci lay bokk. kon daal kër la déggee bu ñu xoolee seen comportement avant combat ak li xam te ne Tapha Mbeur noonu la doon mooy Mame Balla. non da tuuti te aadama doo xeeb doomu aadama. wala doomu aadama nga naan kii mag la te ki ki nga naan mag la dalaa njëkk a bëri dong boo xoolee Mame Balla doole ji mu indi ba ma xamee Mame Balla ba léegi doole ji mosu koo indi ci làmb da koo préparé au sérieux gëm li muy def am ci gëm-gëm yaa ngi dégg xam ne combat bi heure bu jàppee Tapha Mbeur mu jeex ñu ngi ci biir bëre bi tey nag Tapha Mbeur mel ni ko xamul Mame Balla ku xam Mame Balla xam ne mbotkat la ndaanaan la ñu di bëri mu dem jël tànk non Mame Balla bi mu koy mbët première dama bëgg na ngeen di xool image yi di xool baax li ma leen wax première mbot bi mu koy jël mbot mi ci kaw cuisse bi la ko jëlee te mbot boo ko entamé ci kaw cuisse boo sàggar bu ñu suru xoolee nga jiitu mais bi mu entamé première mbot ci kaw baaxul dafa génnaat bi muy entamé deuxième mbot mu ngi ko jël ci diggante suufu tànk ba ak genou ak tibia bi donc nuñ la buñ la mbot mel noonu bu sa mbot mi ñoree buñ téyee tuuti seen sëb sa buñ la la daan na champion bu ne ku daan bu saandooy xam nga ne champion nga ndaanaanu làmb nag noonu la ñuy daanantee seen biir Mambal la daan na Tapha Mbeur mënuñu lu may di félicité Mambal la Tapha ñu wax ko ne ko bu mu découragé xale la nay wut ay combat yoo xam ne ay combat moromam lañ ay combat jànq lañ di ko bëre ñu xam ne kii bu la daane ngeen xam ne même génération la mais génération yi mu bëgg topp di leen ruger yaakaar na fi mu toll nii mi ngi dem ci ay dynamique de victoire tey fi mu toll nii Mame naa ne bu ko seetaanoon xam Mame ñi mu yóbbu top xam na ne mënoon naa moytu Mame Balla jaar ci kanam. waaw loolu am na solo bu loolu weesoo ñëw ñi nga ci li nga xamante ne mooy journée tey bi moon mbayu ëllëg ngéwél gi production daan ko amaloon mu doon dox ci diggante Youssou Ndour bu école de lutte Balla ak ki nga xamante mooy euh, Boy Seye numéro bu écrit Boy Seye Youssou ñëw bëree bëree bëree am ndam ci kaw ki nga xamante ne mooy Boy Seye numéro 2 combat bi kon su nan nga ko gisee euh, euh, doomi ko xam-xam na ndaanaan Boy Seye bii mooy quinzième combat am ci onze victoire am ci deux défaites caati yoof moo ko daan ak njax mécanicien bu ma jumul xawma mu am ci ons victoire ci combat bi Youssou Ndour xale la Youssou Ndour boo ko xoolee même bu dee doomi mbër la aussi li muy def bëgg na ko te am na jom parce que boo daanee tëlër muy ndaanaanu làmb nekk écrit Ndakaaru nga ñu tourné nga daanaan nga daanaan ñagas caxabal ko fii ci Ibamar fii mu daanee tey xabal bu rëy pour pour wàññi pour wax wax ji gëna gatt rek buma la doon décortique ay combat nga xam ne la mom Youssou Ndour mais dama ne la moog Boy sey de ñaari ndaanaan yu ñu dajale kenn ku ne am nga fen kenn ku ne am nga mani Boy sey mën na jongalé wala mu xëtti la la nga mu faqatan la te du bayyi action bu commencé du ko bayyi mais bo nekk ndaanaan di beure ku ndaanaan nga may ko wet yag ci wet gi du yoon boo dee ndaanaan nekk ndaanaan nekk ci lamb ji di beure nekk xalé waroo yàgg ci wetu nit yàgg gi gim ci yàgg baaxul ci moom munoon naa wicc jël boppam dengañ ko ci digg dëndam bëree bi gën a neex mais Youssou Ndour comme mbotkat la kii di jongalekat wala mooy fàqatkat boo fanaanee ci wetu nit ki buñ la mbotee buñ la déclenché nga jóg te nee naa la heure ñu déclenché doomu aadama ka def action ba chaque fois mënut a jiitu chaque fois wax naa leen wax naa leen ko keroog ci combat ba la passé waxaat naa leen ko ci combat bi nit ku def action entamé dëgg-dëgg buñ la suruxul mënoo jiitu suuf su avant loolu sax ñu gis bi arbitre sifflé dañ di bëre rek Youssou daal dal ci kaw amul benn round d'observation ci diggante ñaari xale yi non xam nga ñoom ñaar ñëpp dañ doon bëgg a wane seen bopp ci bëre parce que kii da koo bëgg a wax ne ko yow doomi mbër nga mais teewul nga nekk ndaanaan mais dama ne la nit ki booy bëre moom del del jéem a jël ay vidéo ak ay image am ak ay combat am di ko visionné wala ngay nit kuy dem làmb nga xam ne doo tardé fu làmb am nga dem ak lu mu sori sori nga xam nit kuñ la tegal combat am doo ci am xel ñaar da nga koy xam ba noppi mais da booy sëy la jongale la man ak xëtti mu fàkkat te muy action bu mu commencé da ko yeggale mais nag wetu Youssou Ndour gi mu fanaan Youssou di mbotkat di xeexkat dëgg-dëgg waru ci woon fanaan dam ñu gis sax ci biir bëree bi ki nga xam te ne mooy Youssou Ndour benn moment mi doon tànn li nga xam te ne mooy caxabal loolu baaxul mu continuer di bëri leen loolu day wane ne xale bu technique la wala noo xam nga caxabal ñaare bu baaxul waroo koo force waroo koo wane mais bi nga koy caxabal nee naa la booy sëy dafa daw toog ci wet gi wet gi mu fanaan loolu waru faa fanaan ndax nit chaque fois boo essayé dara bu baaxul mu jël na loxoom wërale ko ci ngemb booy Youssou Ndour booy Youssou Ndour wiccuwaat dellu siwaat ci moom bi booy Youssou Ndour di ko entamé action bi booy sëy xalaatul na booy bi dina ko mbot parce que moom la mu doon xalaat moom boo xoolee ci biir combat bi booy sëy mi ngi dugal loxoom bu baax ci biir ngemb di gën a jekk pour jéem koo songale mais booy songale da ngay songale koo tollool dayo tollool moom doole booy booy booy booy Youssou Ndour liggéey na doole indi na doole te aussi ci open press gis naa ay ndaanaan yu ko jàppale yoo xam ne ci biir Guédiawaye lañ dëkk wan ne ko combat bi war a ko ñàkk ndax xale day wut yoon xale day wut combat yu jànq comme ni nii bañ a wut combat yoo xam ne ay mag lañ koo ci daan ngi ne yaa ko man waaw kon ci am na solo les grands Youssou Ndour ndam lu rëy loolu mu am ci kaw Boy Seye numéro 2 Youssou fan la jëm non Youssou am nay naataangoo comme Boy Seye am nay moroom nee naa la ku nekkul sama école bugguma ngeen may wax loolu loo xam ne mais caradaas la Karada chaque fois am na cinq mbër yoo xam ne say naataangoon la yoo war a bëreel waaye gannaaw nekkul ci man yàlla na ko yàlla defal beneen combat bi di ñëw moom Youssou Ndour moo am ci ndam am ci jël bu rëy comme jël bi tey